ci bis yi nga xam ne dañoo toll wala boog lépp ci borom xam-xam yi jàpp nañ ne ci lañ koy dàkk ñuy ñaan suñu borom dëppale ñu ak moom te taw féexal loolu te nangu ñu jaamu yàlla yépp di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Amadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom fan loolu ak nga xam ne am na ko na ko suñu defal gudd fan ak kattan ba mu amee ko nu kawe njortam di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñu baaxoo topp ci waxtu wi yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ni mu ko baaxoo def ci at yu at yu at yi weesu yëpp ak ba koor gi tàmbalee ba léegi muy di dundal koor ne ko sëriñ bi daan defe roye ca sangam bu baax ba sallallahu alayhi wa sallam bis bu nekk danañu amal ay waxtaan yoo xam ne day fàttali nit ñi seen diine buñ noppee ñu soog leen a dogal te ku ne xam ne yonent bi sallam wax na ci ne koo xam ne dafa dogal koo xam ne dafa woor yool ba nga xam ne am na ko yàlla na ko sunu borom defal duñ ko baaxoo defee nag tey jii it di jàngat bind yu am solo ànd kook boroom xam bu mag te koor gi tàmbali rek léegi ñu di ko defee noonu tey jii indi nañ ab bunt boo xam ne bu am solo la muy communication ak ban rôle la am ci liggéeyal yoonu murit communication nag buñ ko waxee xëy na lu yaatu la ban taxawaay la jokkukaay yi am wala caabal gi ak ban liggéey lay amal ci yoonu murit communication ku ne xam ne ne mënta ñàkk ndax euh, yàlla dafa bind nit ñi ngir ñu mën a wax ba neen bindee ba noppit ngir ñu mën a wax ak ñeneen jokkoo ak ñeneen ñi ñu jàkkaarlool ak ñu jàkkaarlool kon foofii la mbir yi dugg ba nga xam ne mënta ñàkk kon nit ki xam lan la communication moom yi mooy lan ak lan ban rôle lay am ci yoon wi ku ne xam na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom yaa ayyuhar rasuulu balligh la ko waxoon mooy liñ la indi ci mission na nga ko jottali ñeneen ñi wa maa alayka illa al balaagul mubiin loolu lépp mën naa tënk yi nga xam ne solo thème bi dana ko indi ci lu mel noonu euh, ñu war cee ànd ak koo xam ne nag bu ñu ko joxee thème bu mel nii dana ci indi lu am solo muy Serigne Cheikh Fatma Mbacke moom Serigne Moustapha Bachir di koo xam ne doomi dëkk bi la jàngee fi jàng lii nga xam ne moom la doomi soxna baaxoo jàng mu ci noppee mu yokk ab gëstoom jug ci école yi jàngee ci université Gaston Berger bi nga xam ne def na fa liggéey boo am solo yàlla dogal na ñun ñii jaar nañ fa ginnaaw ba ñu fa jógee ñoom def seen liggéey bu am solo ñun fa lañ génne waaye liggéey yam fa daan def ñëpp gis nañ ko ñu ne fay keri daayira yoo xam ne yu am solo la di yaatal yoon wi fexe ba ndaw ñuy jàng euh, nasaraan perte seen identité murit waaye ñu nekk ay murit yoo xam ne yu ñaw lay doon murit boo xam ne day nekk ingénieur boo xam ne day liggéey ba pare sol yëre yi murit loolu ñoom ñi bokk na ci liggéey bu am solo boobu ñu def li ki noonu taxawal na yeneen yoo xam ne jumtukaay la yoo xam ne day tax ñu mën a yaatal yoon wi lu ci mel ne maktab bi maktaba bii nga xam ne mooy daarul himma wala matbaa boobu nga ne mooy daarul himma moom bokk na ñi nga xam ne ak yeneen liggéey loo xam ne euh, def na ko luy tasaare yoon wi jaar na ko ci jumtukaay yu xarale yi nga xam ne moom la war a waxtaane tey kon jàpp naa ne ku mel noonu bu ñu ko joxee tomb bu am solo bii danañ ci jariñu bu baax a baax a baax bu fas yéenee jàngat tomb bi nag ci ay yeneen tomb ci biir muy lan mooy communication bu ñu ko waxee mooy lan naa baat boo xam ne bu ñuy faral di dégg la rawatina ci jamono yii communication moom yi moo yoon wi ban jaar-jaar lañu am naka la communication dund ci yoon wi wala nan la ko yoon wi mos a gisee ban taxawaay la ci am yokkute goo xam ne xëy na communication am na ko ci amal na ko yoon wi wala yu mel noonu dana tëje nag ci euh, ci yii di ñëw jamono jii di ñëw ban défi ak ban euh, perspective la euh, communication ak yoon wi war a am incha allah ñeent tomb yooyu ñu bañ a guddal ndax yeex nañoo tàmbali bu ko defee ñu may ko nopp rek te teewlu ko te fas yéenee jariñu ci ñaanal ko suñu borom defal ko tawfeex ba ni mu bëgg amalee waxtaan bi suñu borom may ko kàttanu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 sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi lay nuyu di la sant ci kàddu yi ubbee yi di ndokkeel mbokki jullit yi ci ni nga ko defee rek ñu jaar ci ñun itam ndokkeel leen ci fukki fan yu mujj yi ci koor gi bi ñu leen ndokkeele ci weeru wi yépp eh, di leen ci jaajëfal waaye di ci ñaan suñu boroom li mu ci dëële ci aw yiw lépp mu jox ñu ko ci lu kaw suñu jot ci barke Cheikhul Khadim mel na ne barab bi ku fi toog danga am yëg-yëg eh, rawatina ku fi toog ñu jox la kàddu ngay wax di nab nabi ci xam-xam toog ci jumaa ji nga xam ne mooy symbole symbole diine lislaam ci Sénégal ay symbole yoonu murit di symboliser liggéeyub Serigne Touba ñu nekk fu soriwul ci fi mu tëdd moom ku tëdd ki Cheikhul Khadim kuñ jox kàddu ngay wax ci barab bu mel noonu ni ko tubaab yi waxee humilité yëg-yëg danga ko am ci euh, wax jooju ak jëf jooju ñu lay defloo mu mel ne euh, li ñuy tàmbale mooy sant bu baax a baax waa mu muxadimatul xidma ci lii ñu ma may ma mën a ñëw ànd ak ñoom boole ma ci liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ci barab bu tedd bii di jumaa ji ci weer wu tedd wii boole gi ñu boole ci liggéey bi ñoo ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax lu rëy rëy la ci ñun ndax ku la liggéeyaloo ci liggéey liggéeyu Serigne Touba bi moo la dimbale kon alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax ñoo ngi leen di ndokkeel itam ci liggéey bu rëy bi nga xam ne daayira bi mi ngi koy def saa su nekk rawatina nag ci weeru wu tedd wi ci jumaa ji bala maa sori nag xam naa ma wax ne euh, tàkkusaani koor la ñu nekk euh, su kàddu gi suufee walla mu fooyooy bu leen ma ko jàppe da ngeen di xam ne weeru koor wi la ñi sant bu sa itam buñ ci profitoo ne gis ngeen mbàkke mbàkke yi ni ñu ragale koor nit ñu koy tooñe euh, waaye daal ñu xam ne su kàddu gi suufee wala mu am nu mu demee looloo ko waral waaye du ragal koor ah. <laughs> yéen ñi sant busa te alhamdulilahi rabbil alamin am na mbàkke-mbàkke boo xam ne moom ñemeel na mbàkke-mbàkke yépp koor ñeme na leen koor cheikhul xadim bi mu demekee gamoo nee nañ am na koor yoo xam ne suñu blaat sax yaakaar na mas na ko wax ci waxtaanam Eh, su dog jotee da daan dagg xobi garab muucu ko ngir am lu mu lu mu doge kooram boobu mbàkke mbàkke moom yaakaar naa yóbbaale na mbàkke mbàkke yépp ci ñeme koor mm, mm, mm, waaye loolu dañuy may ñu fàttaliku kooram googu walla kooram yooyu mu defe woon téeméeri at ak nàngam ci ginnaaw maanaam li dalee 1895 jëm 1902 mu nekk ko Gabon koor yooyu mu fa doon defee na mu fa ne woon cundum moom dong coono yam fa doon jànkoonteel ñàkk am lu mu doge ci anam yii ñu ko nettalee ba muy doge xobi garab di ko muucu ngir am lu mu doge loolu lépp suñu ko méngalee tey jii ak lii waa Muxaddamatul Xidma di def ci ay ndogu ñii ñuy dogal ci ay jullit ay junniy junni bis bu set loolu Cheikhul Khadim doon dund suñ ko méngalee ak fële ci ndakaaru masalikul jinaan taalibeem yi lañ fay def di ko joxe ci ay ndogu duñ ci xàmmee xeej ji ak seen jullit bu fa ñëw rek ñu jox la nga ndogu te yàlla tax suñ méngalee loolu sàppe yañ def ay junniy junni toog sàppe am lu ñu ndogoo lu mucc ayib am fii ci jumaa ji fële ci ndakaaru du may masaalikul jinaan ak yeneen barab bi taalibe Serigne tubaa yu baree bari yu wuute suñ méngalee loolu ndogu yooyu ak condition yi mu doon woore foofu ca Gabon danañ war a gën a santaat yàlla ci ni ko Cheikh mu Mountakha di waxee ci ni mu def Serigne Touba waaye sant ko ci boole gi mu ñu booleeg Serigne bokk yi dafa mel ne kon suñu ñëwee ci thème bi ñuy waxtaane bi war a waxtaane tey incha allah muy wàllu communication caabal euh, taxawaay bi mu am ci liggéeyab Serigne Touba bi ci yoon wi maanaam la place de la communication dans le service à la Mouridiyya muy thème bu yaatu boo xam ne benn jataay mënee su ko cee jeexal ndax communication soo jëloon fukki nit kenn ku ne mën na laa wax definision bu bokkul ak morom ji nuñ koy leerale kon communication lu yaatu la waaye ñun danañ ko jéem a tënk ci ñeenti poñ poñ bu njëkk bi mooy jéem a leeral lan mooy communication poñ tombu ñaareel bi muy fàttali communication ci lislaam communication ci yoon wi historique bi fàttali ko waaye danañ ci teg itam dikk ci ni communication développé ci yoon wi ba ci suñ jamono ji déclic bi lan moo ko waral ñu jeexale ñeenteelu tomb boo xam ne day jëm ci wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la communication ci yoon wi jànkoonteel waaye li nga xam ne mooy ay jéego yu ñu war a def ngir jëm ci kanam ak perspective yi nga xam ne moo nekk suñu kanam ak nag ay recommandation yoo xam ne ci suñu gis-gis suñu ko defee mbir yi ci wàllu communication ci yoon wi dana gën a jëm ca kanam incha allah lan mooy communication loolu mooy tomb bu njëkk bi communication ni ma ko waxee du loo xam ne xëy na ci benn kàddu wala benn phrase mënees na koo wax ne mooy nàngam waaye ci tënk rek mën nañoo jàpp ne euh, ci communication ci baatu latin la jóge communicare muy jokkale jottali wala boole loolu lépp day dugg ci euh, baat bi mu mel ne kon communication daal mooy jot li euh, information walla xam-xam jot ko kenn walla jot ko ñenn muy doomu aadama léeg-léeg sax mën naa doon mala ndax communication da ngeen xam ne nit ma léeg-léeg da koy def ak mala ndax mën ngaa dàq sa muus ne ko sip loolu langage la waaye mënees na ni communication la bu dox diggante nit ak mala kon daal communication mooy bépp jokkalante buy am ci diggante euh, nit ñi léeg-léeg nit ak mala euh, boo xam ne euh, day yóbbaale ay information wala day boole ay information ki xibaar wala xam-xam wala lu demee noonu melow communication nag mën naa euh, ëmb anam yu wuute mën naa nekk visuel li naan gis gis lu mel ni télévision ak lu deme noonu euh, communication mën naa jaar ci lu ñuy gis waaye mën naa jaar ci lu ñuy bind bind mën naa jaar itam ci kàddu communication verbal waaye mën naa nekk loo xam ne li ñu naan communication non verbal du doon kàddu du doon mbind du doon lu ñuy gis waaye dafa mel ne jëf lay doon wala liyaar wala lu demee noonu ndax xam ngeen ne langage des sourds ñi nga xam ne yàlla da leen a binde euh, ñu lu mënuñoo wax am na langage bu ñuy jëfandikoo pour communiquer ci seen biir wala communique ak ñeneen muy langage des signes nga xam ne ay joxañ wala ay junj la ñuy def ci seeni cër nit ñi xam euh, liñ bëgg a wax waaye sax ñi nga xam ne am nañ kàddu mën a wax léeg-léeg ñu jëfandikoo communication non verbal ci ay signes walla nit wax nga cobos ko walla nga fettasu walla nga piis ko walla nga biiñ ko walla am noo def sa kanam walla noo def sa loxo euh, bañ xam li nga bëgg a wax te moonte waxoo kàddu waaye loolu itam dañ koy wooye communication loolu la wax communication non verbale xeeti communication yi nga xam ne euh, moom la euh, lañ mën a wax nag itam mooy li naan communication interpersonnelle maanaam nit toog ak nit di communiquer di wax di waxtaan wala liñ naan communication de groupe maanaam nit toog ak mbooloo lu mel ne fii ñu toog ni jataay bi ñu toog euh, may wax ngeen di déglu wala ngeen di laaj may tontu wala interaction diggante bi am diggante nit aku group loolu it communication de groupe lañ koy wax wala li naan communication de masse maanaam nit kuy wax ak mbooloo nit kuy wax ak réew mi wala nit kuy wax ak àdduna bi di ko jaarale ci yenn jumtukaay yi ba mbooloo mu baree baree baree bari léeg-léeg mën naa nekk ay millions di ko di ko di ko di ko topp loolu lañuy ñuy communication de masse communication itam euh, euh, lenn ci xeeti communication yi li ñu naan communication interne wala externe day am su dee ci entreprise wala lu mel ni mu xaddimatul xidma ci misaal am na communication yoo xam ne ci seen diggante ñoom ñi bokk ci daayira bi lay dox loolu la ñooy communication interne mbiru biir la maanaam jokkalante bu ñuy am di communiquer ci seen jëflante ak seen doxalin daayira bi loolu communication interne waaye mën naa ne communication externe lu mel ne lii ñuy def tey Euh, su ko muxaddamatul xidma di yëgal àdduna bi ne koor gi dañuy def ay waxtaan di ci informer nit ñi loolu communication externe la ndax day génn daayira bi dem ci euh, mbooloo yépp dem ci jullit ñépp euh, loolu itam day definir lenn ci xeeti communication yi nga xam ne am na communication institutionnelle itam dañ koy wax muy lu mel ni ab gouvernement su dee communiquer ak ñi nga xam ne ñoom la ñoo ko ñoo ko ñoo ko tabbu mu leen di liggéeyal communication bi muy def ak ñoom euh, loolu itam euh, li ñu naan communication institutionnelle euh, mën na ko nekk walla communication gouvernementale lu mel ne jamonoy yu Covid Covid bi xam ngeen ne bis bu set gouvernement bi ndawul gouvernement bi daan taxaw di wax nangami kaa nangami nangam nangami nangam di communiquer pour am lu ñuy leeral walla lu ñuy wax nit ñi. loolu mooy communication boo xam ne gouvernement da koy def walla institution communication commercial itam mënees na ko tudd ci xeeti communication yi lu mel ni ab société boo xam ne day liggéey ay jumtukaay walla ay mbir walla lu ñuy xéewloo lu demee noonu euh, communication biñ ciy def ngir nit ñi xam ne nàngamkat lii la baaxe nii la neexe lii lay jar lu demee noonu moom la ñuy woowee communication commerciale lu mel ni publicité yi ngeen di gis ci télévision yeeg yooyu yëpp euh, da koy da koy màndargaal communication politique am na euh, ci xeeti communication yi la maanaam ñiy yëngatu ci langue politique yi communication yi ñuy def ngir leeral seeni programme wax fan lañ bëgg yóbbu réew mi fan lañ bëgg a jële réew mi fan lañ ko bëgg a yóbbu ñooy ñan loolu mooy communication politique donc li ci gën a mooy campagne électorale su amee meeting yi ñuy def ak wër yi ñuy war ak télévision yi ñuy wax ak yooyu yëpp communication day dugg ci communication politique. am na li ñu naan itam ci xeeti communication communication média yoo xam ne day jaar ci média ak communication yu jaarul ci média li ñu wax or média. communication média mooy yi nga xam ne day jaar ci télé yi day jaar ci rajo yi ak yu demee noonu waaye or média mooy communication yoo xam ne lu mel ne def ay affiche ay nataal taf ko nit ñi di ko gis xam li nga bëgg a lan la. wala ay flyers yu ñuy tasaare di ko séddale nit ñi man koo xamee loolu jaarul ci média waaye communication la wala sax euh, lu mel ne Touba ni ñuy def takk rajo ci oto di wër di yëgle dara euh, mën nañ ni communication or média la euh, lan mooy jubluwaayu communication nag objectifu communication jubluwaay bi lan lañ ci bëgg a am moo tax Euh, lan kuy communiquer lan nga bëgg am moo tax ngay communiquer li ci jiitu mooy xamle xamle bokk na ci objectif yi jiitu ci communication maanaam am looy def walla looy liggéey walla looy jaay walla xam-xam boo bëgg a tasaare walla am-am boo bëgg tasaare walla lu la yàlla dénk loo bëgg tasaare nga bëgg koo xamle loolu. bokk na ci objectif communication nga xam ne da ngay communiquer ngir xamle euh, communiquer itam ngir nit ñi nangu nangul la nangul la li ñu naan adhésion walla convaincre maanaam di communiquer ngir convaincre ay nit li ma doon wax ci wàllu politique politiciens yi dañuy communiquer ngir convaincre ay nit ñu ñëw fekk si leen wooteel leen walla lu deme noonu euh, nit yi diine itam dañ koy def euh, communiquer ngir nit ñi xam. diine ji ñuy woote wala tariixa bi ñuy woote lan la ngëneel yi lan la ngir nga mën leen a ngir ñu mën a ñëw bokk si ci loolu itam bokk na ci objectif euh, communication maanaam fexe ba nit ñi nangu euh, li nga leen di woo ñu nangu ko loolu bokk na ci objectif communication bokk na ci objectif yi itam euh, fexe ba soo communiquer ba noppi nga puus nit ñi ñu jëf ñu jëf communiquer ngir nit ñi mën a jëf lu mel ne Covid bi ma doon wax léegi gouvernement bi bi ñuy communiquer di wax feebar bi nii la aaye nii la bone nangam nangam dañoo bëgg nit ñi moytu am na jëf juñ bëgg ñu def ko muy moytu raxas seen loxo nangam nangam loolu euh, dafa bokk ci objectif communication ngir nit ki mën a am lu mu euh, lu mu jëf ci li ngay communiquer man koo pousse ci mu jëf li nga bëgg mu jëf ko kon loolu mooy euh, li ñu mën a tënk ci objectif communication. jumtukaay yi nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo ngir jaarale ci communication lu ci bari tudd naa ko mooy média yi mooy support papier lu mel ne bind ay téere wala ay brochure wala ay flyers loolu lépp support de communication la sit internet sit web euh, support de communication la réseaux sociaux yi support de communication la ñu am ay page Facebook Instagram YouTube yooyu yëpp ay support de communication yu euh, ñuy jaarale euh, communication la blog yi email euh, wala même sax salon yi ak foire yi lu mel ni organiser ab salon ci misaal salon du livre su fekkonte ne Touba gi te loolu maa ngi koy wax waxaat yaakaar naa dana mas a am fu mel ne Touba suñ fi organiser woon at mu jot wala ñetti at yu ne salon du livre international nga xam ne Euh, bépp téere boo xam ne day jën ci lislaam bind nañ ko ci lislaam ci yoon wi euh, woo ci waa Mauritanie waa Maroc réew yu jullit yi euh, nit ñi nga xam ne dañoo bind daje fi ñi bëgg a wecceeku ay téere mën a xool téere yi yër ko ñu def ci ay conférence ay waxtaan loolu day dundal xam-xam am na réew yu bari di koy def lu mel ni Caire Casablanca réew yu arab yu bari réew yu jullit ñu bari dañuy def salon international du livre nga xam ne nit ñi dañuy jóge réew ak réew di xool si téere yi nga xam ne génn na ci at mi di ko wecceeku wala di ci waxtaan euh, loolu communication la communication la ndax day yaatal xam-xam da koy tasaare te jàpp naa ne Touba loolu euh, lu fi yell la euh, kon loolu mooy support yi nga xam ne ci la ñuy jaarale communication su fekkente ne itam ba tey ci wàllu communication Euh, li nga xam ne mooy indi communication bu efficace maanaam li ngay communiquer mën a am njariñ la nga ci jublu nga mën a am objectif ya nga ci jublu euh, wax nañ ne critères yooyu bokk na ci leeraayu message bi li ngay li ngay communiquer na leer waaye na tënku na tënku ndax tënku gi mooy tax ñu mën ko jàpp euh, waaye na doon lu ñu mën a duut baaraam na bañ a nekk rek ay théorie yoo xam ne xëy na euh, lu abstrait loo xam ne kenn mënu koo dut baaraam na nekk lu ko lu concret waaye nu lekk na nekk lu dëggu itam loo xam ne ay nax euh, walla euh, loolu lu mel noonu lalu lalu lalu ko waaye itam na nekk lu mat maanaam koy sooy communiquer da ngay fexe ba message bi ngay joxe nekk lu mat loo xam ne ki ko dégg dana xam ne jox nga ko message bu mat sëkk ba soo bëggee mu jëf ngir li nga communiqué mu mën caa jëf mu mën caa jëf xam dëgg-dëgg euh, message bi nga ko jox ne mat na sëkk waaye na tege ci yiw na yiwee euh, kuy communiquer boole ci ay saaga wala wax ju ñaaw sa communication du efficace du jàll kon kuy communiquer itam wax ja ak na nga koy jàllalee communication dafa war a tege ci lu yiw waxeen wu yiw doxeen wu yiw taxawaay bu yiw communication nag am na jafe-jafe yoo xam ne léeg-léeg dana ko indi walla am loo xam ne ci communication lañ koy booleel waaye safaan lay indi ab safaan la lu mel ne li ñu naan propagande propagande euh, xeetu communication la waaye day mel ne communication la boo xam ne daanaka da ngay jéem a jiñ nit ñi ci jëm barab sàngam walla ñu def ndàngam walla ñu bëgg nàngam walla ñu topp nàngam te loolu dalay jaral noo ko mën a defe rek ba am loolu nga def ko léeg-léeg ci moyen yoo xam ne euh, du doon lu sell euh, xeetu propagande bi gën a siiw euh, jamonoy deuxième guerre mondiale ñi ko jàng nazi yi nga xam ne Hitler moo leen jiite woon Hitler amoon na ministre boo xam ne mi ngi tuddoon Goebbels Euh, yoroon wàllu communication ak propagande ak yu deme noonu kooku ku siiw la ci wàllu propagande xam ngeen ne nazisme ñoom dañoo wane woon ne ñooy xeet bi gën ci àdduna euh, xeeb nit ñu ñuul ñi xeeb euh, yahud yi xeeb ñeneen ñi képp ku bokkul ci ñoom rek ñu xeeb la jàpp ne dañ laa war a not dañ laa war a yilif moom Goebbels moomu ministre de la communication et de la propagande ci jamono jooju dafa mënoon a wax bari pexe fexe ba allemand yi gëm loolu ñu doon wootewoo woo muy nazisme euh, fexe ba bañ gëm ko malgré guerre bi li mu metti metti li ñu dem ba di leen dominer di leen rey ay million ñu rey ko ci ñoom teewut ba ci fin wu guerre bi daanaka allemand yi dañoo wéyoon di gëm Hitler ndax ku li def ci seen bopp yi kon loolu communication buy indi safaan la lu mel ne liñ naan fake news fake news yi itam euh, te mu gën a siiw ci suñu jamono jii euh, communication safaan la ndax mooy communiquer boo xam ne li ngay communiquer lalawul ci dëgg da ngay def ay montage vidéo wala ay audio wala wax xibaar boo xam ne tegewul ci dëgg ngir nit ñi am lu ñu gëm am lu ñu jàpp wala am lu ñu jëf euh, te moonte tegewul ci dëgg léeg-léeg sax xam nga ne ay vidéo sax dañ koy def ba nga xam ne mën nañ laa tegal vidéo boo xam ne jëmm ji lay indi kàddu gi lay indi waaye muy wax loo xam ne euh, dañ koy invanté muy wax ju ñaaw wala wax ju juunu ngir rek yàqal ko loolu yëpp euh, ci fake news la dugg te xam ngeen ne euh, sunu borom moo ñu njëkk a artu ci loolu yaa ayuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi naba in fatabayanu kon sunu borom xam na ne am na ñoo xam ne mën nañoo jëfandikoo fake news kon fake news yàgg na fi yaakaar na euh, te dafa mel ni suñu jamono ji lañ koy gën a waxtaane waaye euh, su suñu borom waxee ci alxuraan euh, lu mel noonu day mel ni kon àdduna yàgg na am ñuy jottali wala jokkalante ay xibaar yoo xam ne bu tegee ci dëgg ngir am jubluwaay buñ ci bëgg te lépp ab safaan lay doon kon nañu moytu réseaux sociaux yeeg information yi nga ciy jot ak di ko ci jokkalante te am na ci lu bare baree bari loo xam ne laluwul ci dëgg lu ñuy fexe la ngir gëm loola dara wala def loolu dara wala jàpp loola dara loo xam ne euh, day wute lool ak li nga xam ne mooy dëgg kon loolu mooy li nga xam ne mën naa juddoo ci communication te nekk ab safaan kon daal ci tënk communication moom ci anam yépp ci àdduna wala ci jëf wala ci suñ dund gi mi ngi ci ci entreprise yi communication xam ngeen ne entreprise yu bari dañuy am communication interne di jokkalante xibaar ci seen biir am communication externe di jottali information ki xabaar ci biti communication commerciale wax naa ko communication institutionnelle euh, communication gouvernementale gis ngeen ne euh, li ma doon wax léegi communication pour mu efficace dafa war a teg ci dëgg ndax xam ngeen ne Covid bi euh, rapport Cour des comptes bi génn bu yàggul lool wax na ne communication bi gouvernement bi daan def léeg-léeg daan nañ yokk kaa yi ngir am jubluwaay buñ ci buñ ci am kon loolu itam bokk na ci liy yàq communication ndax communication su tegewul ci lu dëggu nit ñi amuñ ci yàqin ci ne li ngay wax lu dëggu la. loo communiqué yi même su dee dëgg sax mën nañ laa mën nañ laa bañ a gëm kon nag kuy communiquer soo bëggee sa communication am efficacité dafa war a tege ci ci ci dëgg te loolu misaal la ci jàngalekat yi communica communicant yu mag lañ war a doon ndax xam-xam ku ko bëgg dugal ci bopp xale tout tànk faw nga mën a communiquer ngir mën ko caa dugal am pédagogie ak loolu lépp ci euh, aspect mën a communication man communication ci la bokk même biir famille suñ njaboot yi suñ njaboot yi xam ngeen ne communication day dox ci biir njaboot yi ndax euh, wayjur bi mën na ne mën na woo njabootam ne leen sama kër kat lii laa fiy tere lii laa fiy tere lii laa fiy tere lii laa fi bëgg lii laa fi bëgg loolu communication la ngir ñoom it ñu am nu ñu jëfe kon daal communication lu yaatoo yaatu la loo xam ne euh, xëy na ku ko doon définir ay junj rek lañ ciy joxe ngir ñu mën a xam à peu près euh, lan mooy euh, communication kon ma ñëw ci tombu ñaareel bi li nga xam ne ci yoonu morit mën nañ ko fàttali ci wàllu communication ak yoonu murit xam ngeen ni suñu borom subhanahu wa taala moo moo njëkk nekk communicant suñ ko misaalee par rapport ak jaamam ñi ndax malaaka yi muy yónni ci yonent yi ñuy jotli message am jotli shariam yonent yi di ñu ko jotli loolu communication la euh, tabliix yi ñu doon wax léegi euh, message suñ borom bi suñ borom suy communique ak jaamam ñi da koy jaarale ci malaayika yi euh, jaarale ko ci yonent yi yonent yi wax ñu message bi mooy lan leeral ñu ko ñu mën koo jëfe loolu communication la résultat bi mooy ñu jaamu yàlla euh, ndax communication dafa war a am finalité mooy li li liñ bëgg kiy communiquer li mu bëgg ñu mën koo ñu mën koo topp ñu mën koo def sunu borom communication bi mooy jottali message am doomu aadama yi xam ne dafa bëgg ñu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon sallallahu alayhi wa sallam itam euh, ci communicants yi gën a mag ci histoire àdduna la bokk ndax euh, waxuma la message muy alxuraanul karim bi yàlla jaarale ci moom mu di ñu ko leeral di ko jëf di ko dund waaye xadis yim ñuy leerale message boobu ba léegi ñu ngi koy jàng di ko gëstu euh, di ko jéem a xam di ko jéem a topp loolu kon message la boo xam ne communiqué nañu ko ñam doon dundal daleen ko communiqué ci ñuy gis walla ñuy dégg waaye ñun dañu ko communiqué ci mbind mu fi des ñu koy jàng euh, euh, ngir man ko man ko topp kon communication lu xóota xóot la lu yaatoo yaatu la Cheikhul Khadim itam xam ngeen ne Euh, histoire àdduna xamul ñu ko dàq communiqué ak ñu ko ëpp pédagogie ci communication boobu ci jàllale message am te message am mooy message u sallallahu taala alayhi wa xam ngeen Sëriñ Tuubaa ci jëfam daanaka mën nga ne jëfam yépp message communication la yoo xam ne nit ñi suñ leen ko nettalee rek message boobu day day am yëg-yëg bu muy def ci ñoom bañ man koo bàyyi xel te loolu misaal mi ma ciy joxe am na sama xarit bu ñu wax Omar Ba nekkoon Paris mi ngi Sénégal fi mu ne yaakaar naa jamono yi sax mi ngi doon def euh, Al Wafa Daaru Muxti benn waxtaan ci wàllu aménagement du territoire yu demee noonu euh, cadre de vie moom mas na maa nettali ne euh, am na koor bu mu doon doxantu Paris ba jege benn jardin euh, xelam dem ci watt ci jardin bi ak fleur ndax jàpp na ne yàqalul borom jardin bi dara te fleur bi rafet na ci moom mën na koo jël yóbbu waaye bi mu ko daataa watt xelam dem ci luñ ko masaa nettali ci jëf ju seexul Khadim jëfoon téeméeri at ak nangam ci ginnaaw xelam dem ca nettali boobu tax mu moytoo wat fleur boobu ndax dañ ko wax ne sëriñ Touba mas naa ànd ak Mamor Anta Sali yaakaar naa ngan goo xam ne euh, am boroom xam-xam boo xam ne ab naar nekk fa di waxtaanee ay xam-xam yu xóot ak histoire am boroom xam-xam bu ne euh, woolu sëriñ bi euh, damm ci permi benn bant jox ko ne ko def ko xalima bindal ma li naar bi wax sëriñ bi gis ne kii dammu permi permi perum jàmbur la moomu ko euh, jëfandikoo alali jàmbur te tàgguwuñ ko loolu xelam xalaatu ko tax mu ne ko mënuma bind ci xeetu xalima boobu bàyyil am naa xalima beneen xalima bu ma ko mën a binde kon teet gim teet jëfandikoo bantu buñ demee ci euh, permis te tàgguwuñ boroom ñàkk gim ñàkk jëfandikoo loolu ngir rek liñ naan alali jàmbur ba fa la la la tudd loolu biñ ko ko nettalee moom bi ci xelam demee mu nar a jël lu mel noonu yëfi jàmbur da koo teet ngir xam ne euh, alali jàmbur kenn waru koo jël ci lu dul ci coobareem kon nag day wane ne message Serigne Touba jox na ko message communiqué na ko message boo xam ne ci wàllu doxaliinu àdduna ak jikko loo xam ne diggante bi ay téeméeri téeméeri at ak nàngam la te message boobu dal na kon communication bu efficace dëgg-dëgg mooy loolu beneen bi itam euh, xam ngeen ne euh, ñi ngi nettali ne Serigne Touba. am na bis mu romb euh, defe naa njaareem la walla beneen dëkk euh, ci jën yi nga xam ne ñoo ñoo jàpp euh, sàkket yi wenn jën woo xam ne dafa damm mu woo benn taalibe ngir mu gas ko ñu sampaat ko taalibe bi ñëwee rek tàmbali gas mu ne ko bàyyil demal woo beneen keneen da ngeen ànd ñëw mu woo keneen ba ñëwee kooka ñëw tàmbali gas mu ne ko bàyyil dama la woo keneen te ngeen ànd ñëw ñetteel ba bi mu ñëwee ne bisimilah yi tàmbali gas mu ne mu mu bàyyi ko mu gas ñu sampaat jën wa jàngal na communiqué na te sax daanaka waxul sax li tax muy muy muy communiqué waxul leen ko waaye man mi nga xam ne nett nettali nañ ma ko téeméeri at ak nàngam ginnaaw ba lu may defar ci sama xel dana dem ca loola ne damaa war a wax bismillahi rahmaani rahim kon communication bu efficace dëgg-dëgg loolu la kon Serigne Touba mësuñoo gis ku ko dàq communiquer ci àdduna te noonu la doon communique ak di jàngale euh, li nga xam ne moo ko fi indi woon muy defar defar nit ñi defar jikko yi te mu doon ne ci sangam ba sallallahu taala alayhi wa sallam xam ngeen tombam yi tombam yi nga xam ne ci la daan jàngalee. muy njàngale mu efficace moo xam ne ndax Serigne Touba euh, da daan yittewoo jàngal élite yi élite yi muy ñi féete kaw ci xam-xam ndax bari na ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci ñoom moom ay boroomi xam-xam lañu woon euh, ay kilifa lañu woon ci ñu peeg xam lañ ak ñoo xam ne sore nañ ci lool kon téere yi mu daan bind ak njàngale yi daan jàngale ci wàllu xam-xam euh, ñooñu da leen doon yittewoo jàngal. xam-xam yu xóot a xóot waaye nag maasu nit ñi mbooloo yi nga xam ne am nit ñoo xam ne xëy na weesu nañoo jël ay téere wala laxas wala jàng ci daara yi am na nu mu leen daan jàngale muy tomb yi mu daan def muy tomb yoo xam ne lu ko gën a efficace ci communication moom it kenn mësee su ko gis kon Serigne Touba kenn dàq ko communiquer te bokk na ci tomb yooyu Euh, nettali bu siiw bi ñuy nettali mu ne Mbàkke Buso ragalal yàlla Mbàkke Buso ragalal ku ragal yàlla Mbàkke Buso ragalal ku ragalul yàlla loolu day mel ne sax poésie la day mel ne aw way la ndax ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal yàlla ku ragal yàlla ku ragalul yàlla euh, loolu lépp soo ko déggee day neex a jàpp neex a mokkal waaye muy xam-xam boo xam ne àdduna ak li ci biiram mi ngi ci kon loolu la ñuy wax méthode de communication pédagogique bu efficace xam ngeen itam euh, tombam yi bokk na ci euh, li mu masaa wax ne su ma juumul euh, tomb ñetti tomb yaakaar naa euh, wala boog ñeenti tomb ne yaa ngi nii euh, yaa ngi nii euh, ndigal yi nga xam ne moom lañ la digal yépp mi ngi ci sa kanam liñ la tere mi ngi ci sa ginnaaw li nga bëgg xemeem ko mi ngi sa ndeyjoor li nga ragal di ko daw mi ngi sa càmmoñ soo waxee wutu wuti ndigal yi sa kanam li nga bëgg say mébét say bëgg-bëgg euh, danaan la ñoo bokk fuñ jëm daal di lay fekk si ngeen ànd jëm ca ndigal ya jëm ca lu baax safaan beet noonu muy système mu jàngale boo xam ne système de communication la waaye système pédagogique la boo xam ne euh, mënees na ci jàngal ku ne euh, lu nit ki ñàkk-ñàkk jaar-jaar ci xam-xam lu nit ki tëlee tëlee mokkal lu nit ki tëlee tëlee xam suñ ko jàngalee façon jàngaleen woowu dana ko dana ko xam loolu nag mooy efficacité dëgg ci communication ak communique message bokk na ci itam waxam ju siiw ji mu waxoon euh, ndaxam képp ku réer sawara moo lay gindi ndax nee nañ dafa am bi mu nekkee gànnaar ñu jóge woon ci réew mi euh, jëm ca moom réer ci àllub gànnaar bi fekk na lu ko jiitu sëriñ bi waxoon ne nañ dajale matt mu baree bari taal ko biñ ko defee taalibe yooyu ñëw agsi bi leen sëñ laajee nu ngeen def ba xam barab bi dañ ne ko ah sawara wi ñu séen de moo ñu gindi bañ xam barab bi nga nekk mu ne leen ndaxam de kuréer sawara moo lay gindi loolu wax ju ko gën a gàtt amul waaye wax ju ko gën a fees amul ci njariñ ak xam-xam ak communication message bu mën a dal kon Serigne Touba lépp lu ñuy jëfandikoo ci wàllu communication jëfandikoo na ko euh, ndax daana wéet ak nit bari na lu ngeen di dégg ñu ne sëñ bi mas naa wax diw sàngam mas naa wax kilifa sàngam nàngam euh, masamba da dangeen dégg ñu koy nettali lu mas a wax sëñ masamba masamba nàngam wala ceerno nàngam euh, wala ibrahima fall nàngam loolu lépp mooy danaan jàkkaarloog benn moom ak kenn communiquer ak ñoom wax leen jox leen message waaye daana communiquer ak ay groupe ndax tomb yi ñuy wax mbooloo ko daan wër muy tomb di leen jàngal waaye dana daana communiquer ak maas maasu taalibe yëpp léeg-léeg danaan nañ ma wool fare yëpp nettali siiw boobu ngeen di dégg bi muy woote jumaay Tuubaa ji ci ñu dajaleel ko bañ dajalee ba noppi dafa woowoon taalibe yëpp yëpp yëpp ngir communiquer ak ñoom wax leen lu taxoon mu woolu woolu leen ak lu taxoon mu jëfloo leen ngir ñu dajaleel jumaay tubaa ji kon daana communiquer Euh, moom ak benn benn waaye daana communiquer ay groupe waaye daana communiquer mbooloo mbooloo te loolu day li koy firndeel rek mooy euh, mën nañ ne sax daana communiquer ak àdduna communiquer na ak àdduna ndax sëñ naa wax ne radiallahu taala anhu sëriñ Touba nee na nit ñi de layoon na ak ñoom fii njëkk fa ñu jëm ndax wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa bàyyi fi loolu mooy système de communication yi ñu xam yépp jëfandikoo na ko ngir rek communiquer message bi nga xam ne moom la waroon na defaree nit ñi ngir bi mu fi nekkee muy wax ñuy dégg di jëf ñuy gis man koo roy waaye jëf yooyu kat communication la ci ñun sax ndax ko kuñ ko nettali ndax nettali naa fi ay misaal jëf yooyu da nga ciy daal di mën a roy waaye bind na bàyyi fi loolu mooy liy gën a sax kon ci wàllu communication jëfandikoo na jumtukaayu communication yëpp kon communiqué ak àdduna yëpp li des nag mooy nan lañuy def ba communication boobu ñëpp jot ko loolu danañ ci dikk ci euh, waxtaan wi. histoire yoonu murit nag euh, xam ngeen ne ci wàllu communication yàgg nañoo mën a jëfandikoo ay jumtukaay yoo xam ne dana méngoo ak jamono ja ñu nekkoon. ndax ci wàllu organisation yoon wi ni ko sëriñ bi tërale muy seex yi euh, muy kër yi euh, kenn ku ne am kilifa kilifa googu yilif mbooloo xam ngeen ne niñ daan communiquer bu njëkk jamonoy sëriñ bi ak ginnaaw sëriñ bi mag ñi euh, dañ daan yónni ay ndaw ci kilifa yi kilifa yi ñoom it communiquer ak ñi nga xam ne ñoo aju ci ñoom su ko defee communication bi lënkaloo ba ñu ñu ñu ñu ñu ñu jottali li ñu bëgg jottali noonu la communication tàmbale woon ci yoon wi waaye dem nañ itam ba mën a am ay occasion yuñ communiquer ak nit ñi lu mel ne màggal yi lu mel ne màggal yi ak xew-xew yi euh, euh, kilifa yi dañuy communiquer ak mbooloo yépp waaye jumtukaay yu mel ne bind moom it jàgg nañ ko jëfandikoo ci yoon wi ngir communiquer ngir xamle euh, li sëñ bi jàngale li sëñ bi woote euh, ci arab téere arab yi mel ni sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sëñ Bachir téere yi ñu bind ak ñeneen waaye wolofal wolofal moom it di lu méngoo ak réew mi ak doxeenu réew mi ci ñu mën koo jëfandikoo ngir communiquer ku mel ni Cheikh Moussa euh, man léebu naa leen kàll leen way naa wolof ba làkk leen way naa arab ngir bëgg ngeen xam bàmba yéen waa xarnu bi kon loolu day wane ne ci wolofal itam dañ ko daan jëfandikoo ngir communiquer ak nit ñi xamal leen jaar-jaari sëriñ bi waaye xamal leen liggéeyub sëriñ bi ngir ñu mën koo jëfe euh, sëñ Mbay Jaxate ak euh, Cheikh Samba Jaara Mbay ak ñoo ñuy siiw ci wolofal ñépp seen bind yi ay message la ci wolof méngoo ak làkk yu fi gën a not nit ñi man koo jariñoo xamee ci seen bi waaye royee ko ci waaye jëfe li mu bëgg ci eh, ñu ñu mel ni ci jikko ak ci jëf waaye yoonu murit itam eh, bokk na ci li nga xam ne moo ko yaatal li naan communication non verbale te jaare ci lu mel ne migration yi maanaam sanc yi nga xam ne ak gor yi nga xam ne dañ koy gor ay àll di sanc ay dëkk loolu lépp système de communication la ndax day tax fépp foo xam ne kilifa ak yoon wi dem na fa gor fa ab euh, àll dëkk fa di fa bay ña fa jege ñëpp danañ danañ jot message sëriñ bi ci gis ga ñuy gis ñooñu dañuy mel la ñuy jëf la ñuy wax ñu mën leen yi ñoom it fekk si leen ci li nga xam ne mooy yoonu murit kon loolu itam système de communication la muy sanc yi nga xam ne daanañ ko sanc ay dëkk ak i gox ak i tool xam ngeen ne ci communication itam euh, ñun bi ñuy nekk tout tànk daanañ ko gis ci màggal yi muy diiwaankat yi nga xam ne ñoo daan géew ci pénc yi di nett li jaar-jaari sëriñ bi yoonu géej gi nangam-nangam loolu dëgg la am na ci loo xam ne daawul méngoo xay na daana am ay exagération wala ak ëppal wala loo xam ne du tegee ci xam-xam lool waaye nag am na lum indi li yoon wi ci wàllu communication ci tasaare itam euh, am ñoo xam ne lañ tollool message boobu daana leen ko daana leen ko indil bañ demee ba weesu ko xëy na euh, am nañ yeneen jéego yoo xam ne euh, loola mën na ko wecci lu gën a tege ci xam-xam lu mel ne Bamba mos xam Bamba mos xam it système de communication la jaare ko ci théâtre rek lu demee noonu Euh, wan nit ñi ci euh, ci jëf ak euh, démonstration yoonu géej géeg sëñ bi digganteem ak Samba Law beeg sëñ beeg nangam loolu lépp maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñëwee ci sëñ beeg loolu lépp bari na ñoo xam ne xam yoonu murit ak bëgg sëriñ bi foofa la jaare kon système de communication la loolu nag ci lañ dem ba euh, mën naa ne fin année 70 yi euh, yaakaar naa ndax 1978 ci lañ def benn semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba fële euh, institut islamique Dakar waaye jóge fa 79 def benn semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba UNESCO muy semaine culturelle bu ama am solo boo xam ne defe naa Cheikh Abdoul Ahad moo fa yebaloon sëñ Moustapha Saliou defe naa demoon na ca sëñ Cheikh sunu mag sëñ Cheikh Mbacke sëñ Moussa Bachir sëñ Sam Mbaye ak yeneen borom xam-xam yu bari euh, muy semaine culturelle bu am solo boo xam ne dafa mel ne dafa indiwaat beneen doxin wu yees ci wàllu communication muy jaare ko ci nag génne mbiri yoon wi ci bitti di ko wax ci yeneen làkk ngir ñeneen mën a xam message Serigne Touba mën a xam Serigne bi ci boppam loolu beneen façon wu communication la moom it boo xam ne mi ngi juddoo kon ci année yooyu euh, waaye loolu li ko li ko dooleel itam mooy amoon na ci France ñoo xam ne ay taalibi Serigne Touba yoo xam ne itam tàmbali woon nañu am gis-gis bu sori ci nañ war a communiquer ba message Serigne bi ñu jot li ko àdduna ku mel ne Cheikh Ablaye Dieye xam ngeen ne am na journal bu mu daan génne mook taalibe yi nekk France yaakaar naa miim mouvement international des mourides d'Europe yaakaar naa la ah, su ma juumul ñoom am na journal bu tudd ndigal bu ñu doon génne France boo xam ne dañ ci daan nettali ci France ak ci wolof jaar-jaari sëriñ beeg euh, liggéeyub sëriñ bi loolu itam bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne euh, yoon wi jëfandikoo ko ngir communiquer ak àdduna te loolu dugal na yoonu murit ci yenn dëkk yoo xam ne amu fa woon fu mel ne Guadeloupe île Maurice Guyane Comore fi ne soo fa demee da fekk taalibe Serigne Touba yoo xam ne ñu ci bari ci Cheikh Abdoulaye lañ jaare ba jot message Serigne Touba ba nëga ni ñi ngi dundal euh, màggal gi ñu génn rek sëñ Sam Bousso woo na ma di ma dafa am mbokki taalibe yu jóge Comore defe naa ñoo xam ne gëj nañoo am jaxasoo yoon wi waaye seenu taalibe ñu ngi koy sàmm ba nëga ni ne ma nañ leen wutal ay téere yu ñu mën a yóbbaale ci ay xasaayit ay traduction ak yu demee noonu ba carton lañ leen defal waaye gëmewuñ ko dañ caa bég lool lool lool euh, te loolu communication moo may yoon wi dem ba àgg foofu bokk na ci itam li nga xam ne ci histoire yoon wi communication euh, suñ koy nettali duñ fàtte ne am nay jamono euh, bu njëkk daanaka mën nañ ni service public rek moo fi nekkoon ci média muy rajo Sénégal ORTS euh, télévision Sénégal ñoom rek ñoo fi nekkoon waaye am nay jamono ngir nga gis ci kuy wax ci Serigne Touba lu néew a néew néew lay doon wala nga gis ci agent bu ca nekk wala journaliste bu doonub taalibe lu néew a néew a néew la ndax su ngeen ko fàttalikoo euh, sëñ Modou Kandji mi moo ma ko doon fàttali keroog 1984 euh, Cheikh Abdoul Ahad Tabaski def na waxtaan woo xam ne ñaawlu na ca lool euh, doxalin woowu wane ne dafa mel ne murit yi dañoo beddi ca euh, média d'état yooyu dañu ci suufeel dañu ciy gannaawal dem ba sax ne suñ ci bokkatul nañ ñu ko wax ñu def ko ne rajo ba ca Mali wala ba ca Guinée kon mu doonoon xutba bu tàng boo xam ne bañ ca jógee indi na lu bari indi na lu bari dafa mel ne déclic la créé muy euh, taalibe yi am nañ prise de conscience ci nekkat lii ñëpp bokk ñu bëgg ñu ko xañ sëñ Touba kenn du ko dégg ci média détail yi kenn du ko fa tudd daanaka euh, kenn du ko fa waxtaane ña fa doon murit ñu néewal leen fa néewal leen fa doole loolu jar jar na jóg euh, ci anamuk am suñu yëfi bopp anamu dooleel euh, taalibe yi ci anamu communication bi lu demee noonu maanaam daal waxtaan woowu moom am na lu mu jur lu lu lu baree baree bare ci wàllu histoire yoon wi ak communication ci loolu ci la ñu jógee mën naa ne euh, bi libéralisation euh, espace médiatique bi tàmbalee lu mel ne rajo Dunia taxaw xam ngeen ne ci la taalibe yi commencé am ay émission ku mel ne euh, oustaz Aw Balla Gueye amoon na émission bu yaatu rajo Dunia daan fa jàngale téere sëriñ bi euh, ak ñeneen ak ñeneen ay borom xam-xam yoon wi nga xam ne ci la tàmbale daanaka ñu soog a tàmbalee ndax bu njëkk absence ak ñàkk gu ñàkk teew ci média détails yi taxoon na am ñoo xam ne defe nañ ne murid sax dañoo amul xam-xam amuñu xam-xam amuñu mën a waxtaan ci lu mel noonu Euh, loolu ñu baree bari fi mu ne ndakaaroog yeneen euh, kii dañoo jàppoon murid dañoo jàngut wala dañoo amul xam-xam te lépp daanaka euh, ostracisme moo tax ba amuñu woon accès ci média yooyu waaye waxi sëñ Abdou Lahad jooju li mu jur mooy prise de conscience ba tax ni ma ko waxee lu mel ne rajo Dunya Oustaz Chao Balla Gueye am fa émission ak ñeneen ndànk-ndànk itam ci fin année soixante-dix yi début année deux mille yi am média yu commencé judd euh, lu mel ni ay site internet euh, majalis ak yeneen yeneen site internet yu siiw euh, ci la itam lu mel ni rajo murit ay rajo murit ak télévision tàmbali am rajo Touba international Lamp Fall FM ba mu yàgg Lamp Fall TV ñëw Touba TV Touba Média Al Mouridiya Euh, ak ay journaux yu baree bari yoo xam ne mënees na cee raw du magasin bu ñuy génn mag bu ñu daan génn màggal bi ak journal bu sëñ Moustapha Jaxate sëñ Moustapha Jaxate euh, xaadimul xaadim yaakaar naa moom euh, bokk ci journaliste murid yi njëkk ci métier journalisme te jàng ko nañ ko war a jànge nekk ci professionnel moom it am na lu mu indi ci giseen wu yees ci wàllu communication ak ak ak ak yoon wi te capacité d'adaptation murid yi itam maam ni nga xamante ne xarala bu ñëw taalibe yi danañ ko jéem a noot liggéeyal sëriñ bi tax na itam bi nga xamante ne réseaux sociaux yi xew na Facebook Twitter surtout YouTube tax na murid yi itam song ko sos ay chaînes yu baree baree bari yoo xam ne euh, dafa jëm ci yaatal euh, liggéeyub sëriñ bi chaîne yooyu mënees na cee tudd euh, te chaîne yi li koy alimenté itam mooy euh, bi média yooyu juddoo dafa am mouvement bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko gunge boo xam ne moo koy alimenté ci contenu euh, lu mel ne alwafa daaru moxti lañ fay organiser lu mel ne muxadimatul ma lii ñuy organiser muy ay contenu yu am solo yoo xam ne day day dundal média yi nga xam ne ñooy yëngatu ci réseau sociaux yi lu mel ne académie minan lu mel ni ne qurratu ayni euh, conférence yi rawdu rayaahiin yi nga xam ne dafa mel ne bi média yi tàmbalee juddu euh, réseaux sociaux yi xarala yu yees yi dafa am itam beneen mouvement bu ko accompagner boo xam ne ñoom ñooy euh, taxawal continue amal jëmm xam-xam amal jëmm njàngaleem sëriñ bi ba tax média yi mën a dund ci loolu ñoom it kon loolu jokkaloo googu dafa gën a dëgëral Euh, wàllu communication ci anam googu Touba ca kanam euh, ñoom it ku ne xam na ni ñu taxawee ci wàllu communication euh, muy communication buy dal bu am solo jëfandikoo slogan bu ama am solo boo xam ne sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ko génne woon na ngeen di laaj nit ñi lu ñu man di ko def fu ñu xam muy te communication loolu la soxla maanaam baat yu gàtt yu tënku yu leer yu neex a xam neex a jàpp waaye màndargawu lool lool lool te waxi sëñ Cheikh jooju te Touba ci kanam di ko jëfandikoo seen communication euh, euh, firnde la ci pour am efficacité dëgg ci communication léeg-léeg slogan yu mel noonu di ko jëfandikoo du ci mën a ñàkk kon ma ñëw ci euh, poñ bi ci topp muy poñ bu mujj bi muy gàllankoor yi nga xam ne moo am ci communication yoon wi communication murit ak défi yi nga xam ne muy jéego yi nga xam ne war nañ ko jéggi ak recommandation yoo xam ne xëy na ci sama xalaat suñ ko defee danañ gën a jëm ca kanam ci wàllu communication euh, bokk na ci jafe-jafe yi mooy dafa mel ni amuñ stratégie globale amuñ daal nos gu ñu nos ay pexe yoo xam ne yoon wi dañ naan communication yoon wi nii lañ bëgg mu tëdd ni fii lañ bëgg mu jëm dayo bii lañ bëgg mu mu àgg fa loolu amul amuñ ci stratégie dafa mel ni rek kenn ku ne yaay xool ni nga ko yégee ak ni nga ko xalaatee nga defee ko noonu waaye amuñ stratégie bu nosu waaye dafa mel itam euh, am nañ jafe-jafe ci jot ci message su sëriñ bi directement ndax sëriñ bi ci arab la bind ndax ngën ji mbindeef ni mu doon jëwriñam arab la moo tax muy bind ci arab Euh, dafa mel ne langue arabe boobu am nañu ko peeg am nañu ko man am nañu ko xam ba mën a jot ci message bi waaye euh, loolu dafa mel ne barrière la ci ñenn ñi ngir ñu mën a jot ci ci ci message bi dafa mel ne itam euh, langue international yi ni message bu sëriñ bi waroon a demee ci àdduna bi dafa mel ne lu ci baree bari wolof rek lañ koy joxe message sëriñ bi lu ci baree bari ci wolof lañ koy def kon daanaka day yemaat ci noonu dëgg la loolu am na njariñ ndax réew mi am na ñuñ soxlaa wax message sëriñ bi ci wolof waaye sëriñ bi weesu na foofu dafa war a dem ba ci àdduna bi te àdduna bi euh, lu néew a néew ngay dem ci daayira yi ñu wax fa français ñu am ay gan wala màggal seeni gan ñëw lu néew néew la ñuy wax ak ñoom ci langue yi nga xam ne euh, ñooy langue internationale lu mel ne français anglais espagnol yu demee noonu ñaare tuuti lañ cay wax wala duñ cay wax la cay def lépp wolof lañ koy def su ko defee gan ña fay ñëw duñ jot dëgg-dëgg ci message bi dafa mel ne itam euh, jafe-jafe communication ci yoonu itam bokk na ci dafa mel ni amuñ ay support de communication yu doy dëgg la tàmbali nañu am ay téere ci français di ko ay di ko traduire ak yu demee noonu waaye doy doyut dara dara dara euh, lu mel ni ay brochure euh, rawatina nag loo xam ne lu officiel la loolu moom daanaka amuñ ci dara nga xam ne gan su ñëwee dañuy raasaatu euh, ci ay téere ci ay mbind wala luñ ko mën a jox lu mën a xame xamee sëriñ bi xamee message sëriñ bi te loolu jafe-jafe dëgg la dafa mel ne itam média murid yi xaw nañoo néew kàttan tasaaroo gi Euh, néew doole ñàkki moyen tax na euh, ni ñu war a amee doole dëgg-dëgg te loolu sax day expliqué li tax li gën a yomb la ñuy def muy wax ci émission yi ci wolof euh, xëy na coono yañ ci war a daj ngir mën a wax ko ci français wala ci anglais wala ci leneen wala def ay sous-titrage wala voix off ci yeneen làkk loolu ay moyens lay laaj te dafa mel ne faiblesse su moyens yi nga xam ne moom la média yi am loolu gàllankoor la ci dafa mel ne itam bokk na ci jafe-jafe communication mooy amuñ communication officielle yoon wi amuñ communication officielle wala boog amuñ euh, jumtukaay yu communication officielle par exemple niñ mënee a waxee ne gouvernement Sénégal am nañ RTS am nañ Le Soleil am nañ APS am nañ ay médium yoo xam ne officiellement gouvernement wu Sénégal lay jox jot li seen kàddu yoon wi amuñ amuñ amuñ amuñ loolu ay médias yoo xam ne officiellement dañuy jottali kàddu kàddu yoon wi dëgg la am na ñuy média murit yuy jéem a jottali kàddu yoon wi waaye du kàddu officiel ay privé la taalibi Serigne Touba yuy jotli message yu bi waaye euh, côté boobu mën naa ne am na am na jafe-jafe. dafa mel ne itam. Euh, yoon wi niñ koy jéem a tasaaroo ci biti bitim réew taalibe Serigne Touba ya fa nekk di émigré yi ñooy def seen kem kàttan ngir tasaare mbiri yoon wi di taxawal ay daayira ay kër Serigne Touba waaye ñoom loolu du seen liggéey maanaam formé wuñ leen ngir loolu formé wuñ leen dañoo dem ngir daani seen doole waaye nag bëgg a liggéeyaale Serigne Touba ci anam googu dafa mel ni kon waajaluñ ñoo xam ne dañ leen di tàggat euh, jël leen en charge yoon wi. ngir ñu mën a tasaare message yu sëriñ bi ci làng yi ñu ko war a jaarale loolu itam jafe-jafe la ci wàllu communication pour jàllale message yu sëriñ bi dafa mel ne itam te loolu ñàkk communication officielle mën na ko mën na ko mën na ko indi muy amuñ pexe yoo xam ne walla stratégie ngir faagaagal ñi nga xam ne dañoo yaatu lool léegi ci réseaux sociaux yi di diingat sëriñ bi di diingat tasawuf di diingat nit ñu baax ñi euh, am benn discours am message ñoo ñuy diingat euh, yoon wi sëriñ bi tasawuf dafa mel ni amuñ stratégie boo xam ne lal nañ ko ngir contrer leen ngir seen gaañ euh, loolu ñuy jéem a gàllankoor ak di ko jéem a yàq ñu mën leen a ñu mën leen a jàmmaarloo ak ñoom ci wàllu xam-xam ci wàllu communication dafa mel ni amuñ ci stratégie kon li may jeexale mooy euh, ndax waxtu jàpp naa ne mi ngi sori ci lu gàtt rek li may jeexale mooy recommandation ak perspective yoo xam ne euh, jafe-jafe yi ma tudd xëy na danaa ci indi ay gisini ak xalaat yoo xam ne euh, saafara mën na ci am suñ ko jëlee en charge incha allah li ci jiitu mooy fexe ba am stratégie am plan directeur communication boo xam ne yoon wee koy ñu ko mate ay professionnel waaye yoon wi def plan boo xam ne dañ ci tëral stratégie bu leer boo xam ne suñ communication ci lañ koy doxale ci nangami at yi di ñëw euh, nga xam ne li biir réew mi li bitim réew li tasaari njàngaleem sëriñ bi ci biti loolu lépp ñu am ci stratégie bu leer boo xam ne euh, danañ ko mën a xool nu koy jaarale ci wàllu communication euh, loolu plan bu mel noonu jàpp naa ne suñ ko defoon danañ am yoon wu leer wuñ mën a jaar wu mën a indi ay résultat waaye li ci desit mooy li ci topp mooy ñu tàggat ay ay nit ñoo xam ne daanaka lu mel ni ay ambassadeur yoonu murit ab baat la rek aw tur la nii rek waaye liñ ci jublu daal mooy ñoo xam ne doomi yoon wi lañuy doon xam diine ji xam njàngalem sëriñ bi waaye ñu tàggat leen ci langue internationale yi ñii français ñii anglais ñii espagnol waaye ñu jàngal leen ay technique de communication ni ñuy def ba mën a convaincre ci wàllu ndax euh, jo jotu li wala jox koo xam ne dub jullit wala koo xam ne dub murit nga wax ba leeral ko njàngalem sëriñ bi leeral ko diine du ku ne ko man kuñ war a kuñ tàggat rek moo ko war a mën a def ndax bu njëkk tubaab yi bi ñu fi indi euh, colonisation di fi indi catholique catholicisme ay missionnaire lañ jiital dañoo tàggat ay missionnaire ñoo xam ne dañu leen tàggat ci anam yu bari ngir ñu ñëw dugal euh, africains yi ñiñ coloniser ci seen diine ak seen civilisation kon dafa mel ne stratégie yu mel noonu euh, alxikmatu dalatul muminin euh, xalaat bu baax wala lu mën a doon fu ñu ko gisee rek war nañ ko mën a jëfandikoo mu nekk stratégie ñun jëmale ko ci fa fa ñu bëgg muy liggéeyal sëriñ bi muy tasaare njàngaleem kon tàggat ndawi yoon wi yoo xam ne yoon wi da leen jël en charge te jàpp naa ne université euh, Touba bi war na cee mën a def liggéey bu am am solo muy tàggat ñoo xam ne jàngal leen làkk yi langue internationale yi jàngaleen leen technique de communication jàngaleen lépp loo xam ne sociologie ndax ko affecté États-Unis euh, mu mën a xam États-Unis nit ña nuñ mel seen histoire loolu lépp mu man koo xam man faa toog nag liggéeyal fa yoon wi tasaari njàngaleem sëriñ bi yaakaar naa loolu dana am efficacité boo xam ne suñ ko defee yoon wi jël leen en yi tasaare leen ci àdduna bi euh, benn benn yooyu jàpp naa ne mën nañoo soppi lu baree bare bari bari ci message sëriñ bi ni mu war a ni mu war a yaatoo dafa mel ne itam lu mel ni institut des imams institut de formation d'imam moom it suñ ko defoon Touba institut boo xam ne dañ fay former ay imam ngir imaam yi réew mi waaye ubbi ko ci bitim réew sous région bi Gambie Mali euh, Guinée yooyu yëpp ay réew yu jullit lañu suñ defoon tubaa institut boo xam ne te jàpp naa ne université bi mën na ko taxawal mu rattaché wu ci di forme ay imaam yoo xam ne ci réew yooyu la ñuy jógee danañ mën a def ci ñoom loo xam ne ci njàngaleem Serigne Touba bis bu ñu demee danañ mën a nekk vecteur de communication ci yoon wi réew seen réew yi jóge danañ fa mën a euh, gën a tasaare. njàngaleem njàngaleem sëriñ bi gën a xamle gën a xamle sëriñ bi te loolu jàpp naa ne lu stratégique la ndax par exemple lu mel ne Maroc ñi ngi koy def Maroc buur bi am na lu mu fondation bu mu taxawal boo xam ne euh, dañuy former ay imam ci réew jullit yi di leen jël di leen yóbbu di leen may bourse te liñ ci jublu rek mooy ñoo ñooñu bëgg Maroc xam leen nekk fa di defendre Maroc di défendre intérêt Maroc ci seeni réew yoonu murit mën nañ loolu mën nañ koo def ngir tasaare ko ci sous région bi euh, njàngalem sëriñ bi jaarale ko ci maye ay bourse ay imam yu nekk ginne yu nekk Gambie yu nekk Mali ñooñu suñ delloo ci seeni réew faaw am yëg-yëg bu ñu am ci Serigne Touba te danañ gën a mën a ñooy gën a mën a jekku sax ngir tasaare tasaare njàngaleem Serigne bi foofa loolu bokk na ci euh, xalaat yi beneen xalaat bi itam mooy ñu fexe ba am communication officielle ay média officielle euh, yoon wi war nañu am rajo war nañu am télévision boo xam ne bu yoon wi la war nañoo am journal boo xam ne bu yoon wi la war nañoo am euh, présence ci réseau sociaux yi boo xam ne bu officiel ci yoon wi la nga xam ne lu fa génn dañuy xam ne lii moom kàddu yoon wi la duñ ko laam-laamee te loolu du yàq dara dara ci ñi nga xam ne ay initiative privée lañ ay taalibe lañ taxawal seen yëfi bopp ngir tasaari njàngaleem sëriñ bi loolu lépp ak yaatal lay doon ndax euh, ni ngeen ko xamee officiellement gouvernement bi am na RTS am nañ Le Soleil am nañ APS waaye teewul yeneen privé ñu ngi fi TFM Sen TV Walf yooyu yëpp ay privé la ñëpp a ngi jéem a doxal euh, te kenn yàqalul sa morom a priori xëy na yu dul rek publicité yi ñuy xëccoo bi demee noonu jàpp naa ne yoon wi itam mën nañoo am ay média officielle te du yàqal dara ñi nga xam ne ay initiative privée la euh, di yëngutu ci média yi beneen bi ci topp ci xalaat yi itam mooy fexe ba contrôler ay médias généralistes fexe ba contrôler ay médias généralistes ndax liñ seetlu mooy ñaare média bi soo nee Touba nangam wala nga ne murit nangam ñu dul murit ñaare dana néew ñu nangoo dem foofu xool ku dul xool nag doo ko mën a convaincre moo tax euh, dëgg la média yooyu nga xam ne ñoo fi nekk tudd turi murit di yëngatu ci liggéey sëriñ bi ci njàng eh, tasaari njàngaleem ñu ama ama am solo lañ ci liggéey bi ci xamal taalibe yi ci seen bopp ndax taalibe yi ci seen bopp ñoo war a njëkk a xam njàngaleem sëriñ bi ñoo ci gën di farat rek xam ko kon média yooyu taxawaay boobu ñuy taxaw lu mënta ñàkk la waaye nag dañoo war a am yeneen stratégie yu gën a xóot muy contrôler ay média yoo xam ne xëy na kenn du xam ne sax média murit la kenn du xam ne ab murit ko moom waaye nag ñu fexe ba am agenda bu leer boo xam ne yuq ba la koy doxal danañ ci am lu leer loo xam ne Serigne Touba dana fa saf-sàpp euh, liggéeyam dana fa fés te euh, nit dana fa mën a jaari xam Serigne bi te borom alali yoon wi loolu euh, lu yomba jomb ci ñoom la ndax média yi dañuy jaay rek groupe de presse yi média yi ku am alal mën nga ko ubbi te mën ngaa sax fekk boo xam ne mi ngi dox kenn xamul ne yëfi murit la nga jaar ci suuf doonu murit am sa xaalis jënd ko def ko jumtukaay am noo koy liggéeyal sëriñ bi te kenn du ko xam loolu lépp ay stratégie la yoo xam ne euh, suñ bëggee tasaare jëfandikoo jumtukaay euh, xarala yi ak communication mënees na cee jaare ba ba ba ba liggéeyal sëriñ bi ci tasaare njàngaleem ndax dañoo am àq ci tasaare lii nga xam ne mooy mooy njàngaleem sëriñ bi dañ ci euh, àq la ci suñ kaw mission la ci ñun ñu war tasaare beneen bi ci topp mooy traduction traduction itam farata la joo xam ne ju mënta ñàkk euh, français euh, langue la waaye langue bu néew doole la par rapport ak soo ko méngalee ak anglais ak ak yooyu kon nañuy traduire ci français waaye nañuy traduire ci anglais nañ gën a yaatal mbir traduction nañ ci gën a sonn euh, man sax sama sama taaw bu góor Égypte la doon jànge bi mu amee maîtrise dama ne ko na dem France jàngi traduction ndax jàpp naa ne ñun ñëpp warugar la ci ñun suñ njaboot yi ñu xool fu ñu leen di orienté fu ñu mën a amale njariñ yoon wi kon loolu taalibe bu ne mën nga ci liggéeyal Serigne Touba xool sa njaboot ci seen i njàng nga am foo leen orienté foo xam ne yoon wi kat domaine sàngam soxla na fa ay expert soxla na fa ay borom xam-xam nga orienté fa sa njaboot ngir ñu ëllëg ak si biir la ñuy liggéey ngir seen bopp waaye ñu liggéeyaaleel yoon bi liggéeyaaleel Serigne bi beneen bi ci topp euh, euh, sot dafa mel ne suñ opérateur économique dañu dul sot dëgg-dëgg par rapport ak ni ko ñeneen ñi defee euh, wàllu publicité média murid yi soo xoolee média yi nga xam ne daanaka doo fa gis sëriñ ci lu am solo wala lu bon la ñuy wax ci Touba wala lu bon la ñuy wax ci yoon wi wala amuñ benn respect bi ci yoon wi te teewul borom alal yi yoon wi dañ fay yóbbu di fa publicité di leen financer daanaka te euh, média murid yi euh, daanaka lu néew la ñuy jot kon sot boobu ñu war a sot itam fexe ba dëgëral média murid yi loolu itam dafa bokk ci dafa bokk ci liggéey bi waaye sensibilisation la laaj maanaam borom alal yi dafa jar ñu sensibiliser ci ñu ci bari am na ñu ko ci xam waaye am na ñoo xam ne faaw ñu attirer seen attention ci ne mënees naa liggéeyal Serigne Touba ci seen i publicité seen i euh, li ñuy def ci communication ñu beral ci loxo média murid yi ba ñu gën a am doole. lu mel ni yahud yi ñu mën a def loolu la ñoom ngir dooleel seen ñi bokk ci ñoom euh, dafa mel ne itam euh, bokk na ci xalaat yi mooy cible yi nuñ koy fexee ba message ñu koy ñu ci bàyyi xel environnement bi dañ may nettali ne am na Amérique euh, noir américain yoo xam ne bi ñu duggee ci lislaam dugg ci yoonu murit tàmbali dem ci daayira yi toog toog loo gi ñu leen ci suuf euh, yarub murit ñu bëgg def ci ñoom ci saase am na ñoo xam ne dañuy xalaat seen démb ndax noir américain yi dañoo jaar ci njaam li yóbbu Amérique euh, ay noir mooy dañu leen jàpp jaam yóbbu leen seeni maama ki maama doonoon ay jaam di leen toroxal di leen euh, gàccaal ba seeni sët ak sëtaat fi ne ñoo fa ñoo fa nekk waaye ñoom ku ci dugg ci yoonu murit xëy na soo xamul li nekk ci toog ci suuf yaru da nga mën ngaa jàpp ne dañ laa bëgg a delloo ci ak njàmm te loolu euh, xëy na environnement sociologie lu demee noonu faaw ñu xam environnement bi ak cible yi nga xam ne dañ leen bëgg dugal ci yoon wi ci diine ji ñu xam nu ñuy waxee ak ñoom nu ñu leen di jottalee message bi par rapport ak seen histoire ñoom ak seen démb ak seeni jaar-jaar ba li ñuy fi ñu leen di jaarloo Euh, du du ñoom du leen du leen du leen du leen heurté duñ defee ne dañu leen bëgg a delloo ci njaam wala ci leneen yaakaar naa message bi ñu koy adapté ak cible yi lu ci lu ci baax la idu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawxisati l xasana yaakaar naa loolu mooy loolu fexe ba woote bi ñu koy jaarale ci message boo xam ne dana méngoo ki euh, ñu koy jëmale mu nangu ko te du ci gis ab safaan wala du ci gis dara loo xam ne dana nekk ci ginnaaw lu koy lu koy lu koy naqari bokk na ci itam stratégie ak ni ñu war a def ba communication mën a gën a baax mooy ñu fexe ba suñuy waxtaan ak suñuy émission suñuy conférence ñu moytu propagande yi noppi naa daanaka ñaari minute <laughs> ak euh, ëppal gi ñuy ëppal léeg-léeg ci yenn yi te itam fexe ba lu ñuy wax rek mu tege ci xam-xam tege ci euh, euh, lu dëggu loolu itam yaakaar naa lu lu ama am solo la leneen li ci li ci topp mooy forme formation fexe ba ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci média yi Touba média murid yi ñu fexe ba di leen dajale rek ay lël ay séminaire yu demee noonu di leen attirer seen attention ci lu ñu war a filmer lu ñu war a lu ñu war a génne message beeg lu ñu ko war a war a génne léeg-léeg da gis ci télévision soxna su yor meesam léttuwut euh, musóoruwul muuruwut koo xam ne daanaka euh, yaram waa ngi feeñ et cetera loolu loolu lépp caméraman bi moom mën na ci bañ a xam dara comme xormay Tuubaa ni mu mel faw ñuy bàyyi xel itam léeg-léeg def ay lël waxtaan ak caméraman yi waxtaan ak ñu nekk ci média yi bañ xam xormay Tuubaa nan lañu war a filmer lan lañ war a wane mu demee noonu loolu yaakaar naa lu am am solo la ci ci ci ci stratégie communication bokk na ci itam Euh, te loolu mairie Touba laa ci interpellé muy lu mel ne bureau d'information et d'orientation dafa mel ne dëkk bi ay touristes ñu ngi fi ñëw ay tubaab ay nangam ay nangam waaye léeg-léeg kuñ taseel rek moo leen di wax ne yoonu murid lii la sëriñ bi lii la euh, su leen waxee lu juunu nag su boobaa ñoom loolu rek la ñuy jàpp moo tax lu mel ne mairie Touba waroon nañ ci am division boo xam ne dañuy teg ay bureau d'information et d'orientation ci bunti dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci dëkk bi te xamoo fi nga mën faa jaar ñu orienté la guidé la mën a wax ak yow làkk ba ngay wax jox la ay brochure jox la ay plan wax la site yi nga war a dem wax la su dee jumaa ja waa Moukhaddamatoul Khidma koo fu war a contacter ak lu demee noonu yaakaar naa maire bi war naa euh, te dëkk yu baree bari seeni i yi dañuy am ay bureau d'accueil et d'orientation et d'information te li may jeexale mooy communication bi gën nag mooy mooy sunu jëmm yi ñu defar ko ba ku ñu gis xeemeem sëriñ bi yaakaar naa loolu moom mooy clé wu communication yoon wi kenn ku ne foo nekk nga xam ne ambassadeur yoon wi la nga ambassadeur sëriñ bi nga euh, defar sa jëmm defar sa jikko ba ku la gis xeemeem la ba euh, euh, bëgg a gëstu bëgg a xeeñtu sëriñ sëriñ te loolu yaakaar naa mooy communication bi gën a efficace te ku ñuy wax Sidi Mokhtar sama benn jarbaat daf maa nettali ne moom keer la jànge mm-hmm. nee na ba muy jànge keer dafa nekkoon ak mbokkam mu dëkk Kaolack kooka ne ko man de wax dëgg yàlla xam gii ma la xam ci nekk gii ñu nekk keer ma xam ne ku baax nga xam ne jullit dëgg nga moo tax ma xam ne murid yi ay jullit lañ ndax man Kawlax laa dëkk jullit laa waaye dama dañ ma samay wéjur ak samay kilifa dañ maa yàgg wax ne murid yi ñoom daanaka du ñuy jullit te loolu euh, bari na ci senegal ñoo xam ne loolu lañ jàpp kon Sidi Moxtaar ne moom nekk gam nekk kooku wan li lim ko wan euh, ki mu doon ak euh, na mu mel ak i mu tax na moom kooka respecté yoonu murit xam ne yoonu murit kat lii la kon jàpp naa ne suñ jëmm yi ñu defar ko ba euh, ginnaaw sëñ Mountakha da wax ginnaaw Serigne Touba dañ koy jox suñ lépp liñ koy jox nañ ko defar kon nañu defar suñ jëmm yi ba ku ñu gis xam ne ñooy vecteur de communication bi gën a am doole ci yoonu murit ndax jikko ndax jëfin ndax def lu baax ndax yéwén ndax xidmaal euh, jullit ñi loolu suñ ko defee yaakaar naa mooy vecteur de communication bi gën a am solo ci ci ci lu mu mën a doon li may jeexale nag mooy sunu mission la ñun ñëpp ñu taxaw ci communication yoon wi tasaare message yu sëriñ bi ndax euh, sëñ Moustapha Diatara daf may nettali ne mas nañoo dem Iran ayatullah xamee ne ne leen man bi fi Rafsanjani ñëwee indaaleel ma masaalikul jinaan ak téere Serigne Touba ci laa xam kii mooy kan waaye yéen sàggan ngeen di ku mel nii nu ngeen koy amee te ñun xamuñ ko euh, dégg naa Cheikh Mourtala bi mu génnee ne waaw wax na dëgg de wax na dëgg te Cheikh Mourtala moom gàcci ngala ma def na ca la mu waroon a def lépp sonn na ci dundam yépp loolu la ko def waaye daal des na kenn ku nekk ci ñun am nga warugar ci xam ne euh, am na lu des ci euh, te sunu warugar la ñu tasaare euh, njàngalem sëriñ bi te jaarale ko ci jumtukaayu xarala yi jaarale ko ci communication jaarale ko ci sunu comportement sunu jëf ak sunu doxalin loolu daal moo doonoon waxtaan wi di jégalu ci guddal gi nag di leen sant di leen gërëm di ñaan sunu borom defal nu ak digg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa wa barakaatu. jërëjëf suñu seex am na solo lool day wane ne jox nañ ko ko mënoon lool. li muy ci tënk rek mooy islam bi moom diine la joo xam ne diine communication la moo waral xutba yi àjjuma yeeg xutba yi di yeeg bi bi mu ñëwee ci lool rek la jaaroon mooy ci euh, communication rawatina wax ak na ñi ci lu mel ni ci bind ak wax ak jëf kon loolu rek mën naa waxtaan bi sëriñ bi li leeroon aw làmmiñ la mënoon a wax nit ñi ne ndax ak yeneen bokk na ci rôle yi ko yàlla a borom jox mooy ab liir mooy jotale kon ñun indi ci waxtaan bi am na solo lool xam naa yéex a tàmbali ci moo tax ak euh, maîtriser pour maîtriser thème boobu noonu muy am solo kon suba incha allah tamit danañ am weneen waxtaan boo xam ne euh, borom xam-xam bu mag moo koy def muy si incha allah Moussa Abdourahmane di waxtaan aju ci dëkku Touba bi ak ëllëgam rawatina ci bu ñu ko xoolee jàngat. jëfi Cheikh Mountakha ji nga xam ne mooy ubbi complexe Cheikh Ahmadou Khadim bu bi nga xam ne am njàng ak nan lañ mën a yaree ndaw ñi ba bu ëllëgee Touba nekk dëkk bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon mu ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew di sant tamit ñi nga xam ne ñoo doon jàllale mbir mi ndax bokk na ci rek rôle bu communication yi mën a joué mooy waxtaan yi murid yi nekk ci àdduna bi yëpp ñu ngi koy gis te loolu communication ak rôle bu am solo moo tax julli yi nga xam ne mooy fii ci jumaa ji mboolem ku nekk Touba ak ku fi bu baax jàng mais Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko euh, di taxawee te mu nekk foo xam ne fu ñu ban ba loola rootukaay bu am solo la boo xam ne day saafara ay jàngoro ñi ne adduna bi yëpp ñu ngi koy seetaan boole communication am bu am solo ba tax na mbooleen ko em murit nga ne ci Touba wala feneen da mën a mel ne yaa ngi ci biir Touba di suivre euh, waxtaani jumaa ji di suivre euh, julli ji àjjuma yeeg xutba yeeg yëpp kon ñu sant mbooleem presse bi nga xam ne ñoo ko doon jàllale lu mel ne rajo ak chaîne yi nga xam ne ñoo ngi ci euh, biir dëkk bi di leen jox daje incha allah suba ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu